نعم نسبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ñaaxee na ci ne képp koo xam ne bi si ajjuma julli nga ci moom yàlla dina ko delloo ruuxam gi mu fay la loolu yàlla na ko yàlla def si ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu delloo nuyoo ak yeneen gëneel yoo xam ne ajuma am na ko di julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne lépp lu leer sa diine ji leeral na ko ba nga xam ne diine ji leer na ci moom comme nu mu ko misaalee julli googu yàlla nekk ci moom nekk ci ay nekk ci mboolem jullit ba respect gannaaw loolu ñëw ci bayaan bi ngir fàttaliwaante ak mbokk jullit yi loo xam ne dinañu jox li nga xam ne mooy texe àddina ak texe àllaaxira ndax jullit ci ñaar yooyu yëpp da war dox pour am texe boobu di ndokkeel mbokk mbokk jullit yëpp ci weeru mag bi ñu dugg ñu weeri aj li koy wax jawra zul hijja weer nag bi ko waxee am na ngëneel boo xam ne jege woon na ko ngëneel googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala fonk lool bëgg ko ci fan yii nii te mooy fukk yii nii ñu koy tuddee fukk tabaski yii ndaxte am na jaam yàlla bu màgg bu foor bu ci am bokk ci rukun yi min arkaan islam te koy wax ponk yi ci ponk islam yi te mooy aj aj nekk jaam yàlla boo xam ne daanaka mën na yoo xam ne façon jaam yàlla yëpp wala façon farat yëpp day dajee ci ñi nga xam ne dañoo dem aji fële ca mag te mooy julli or wala julli joxe ak yeneen jaamu yàlla yoo xam ni ko def di ñaan yàlla képp koo xam ne yàlla na ko mu dem foofu yàlla na ko dogal ajam ndax loolu mooy li nga xam ne la bi sallallahu alayhi wax ne ku ko am nekk lu aljana ñi mottali la nga xam ne lañ commencé di maqasidu sharia al islamiyya mooy jubluwaay yi nga xam ne sharia islamiya am na ko ñi jiite woon ci ne sharia islamiya ñëw na pour xamal ñu ne bakkani doomu aadama du foor la kon dañ kaa war a sàmm yëmu ci waaye wax nañu naka lañ koy sàmmee loolu jaaroon nañ ci ñu indiwaat beneen te mooy diine diine tamit nekk lu am importance ci doomu aadama bi ndax borom xam-xam yu bëri wax nañ ne wóolu nañ mbooloo yépp waaye gisuñ mbooloo mu ñàkk diine kon diine lu am solo la ci dundu doomu adama gi tamit am na ay jumtuwaay yoo xam ne dañ cee war a jaar pour sàmm ko ba nga xam ne ku nekk da nga dund sa diine comme nu ko yàlla subhanahu wa taala bëggee bu dee islam ñu wax kon nu ko sharia islamiya digale tey dañu ñëw indi beneen te mooy wëttu li nga xam ne mooy alal ci jubluwaayu sariya yi la bokk bokk si yi nga xam ne lu mënta ñàkk la ci doomu aadama bi maanaam doomu aadama bi fu mu am alal ndax loolu subhaanahu wa taala moo ko jegeel kon sariya islamiya bu la joxee alal dafa am ay loi wala ay atte yoo xam ne dafa ciy teg pour jullit bu xam ko ba nga xam ne alal jooju dina ko mën a sàmm bokk na ci bu ci njëkk jullit bi war kaa xam mooy miraas miraas bi ñu ko waxee mooy ki nga xam ne dafa faatu lam bàyyi loolu dañ kaa war a doon pour lan pour sàmm alal jooju dañ ko bàyyee ñi koy def euh, nit ñi neex wala dinga ko séddoo waaye dañ kaa war a miraas am ay cër yoo xam ne dafa am ñu ko war a am ñu jox leen loolu dafay def alal ji ñi sàmm ko mu gën a continuer bokk na ci li nga xam ne sariya islamiya jàngale na ko mooy alal jooju noonu fan nga koy jëlee ak foo koy dugal manaa fan nga koy jëlee mooy nu koy fàggoo loolu sariya islamiya dalaa indil yoon wooy jaar pour am alal jooju ak boo ko amee foo koy dugal سريع إسلامي واحد كان على نقول لي نيجي نحن نقول وده بنك أميت من نقول نيجي نحن نقول في ناس متى ينتمي صلى الله عليه وسلم يوني إني نبين حديثنا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين من أمر بين نجام بقى من بسبن تدينه يوم ميجي بين باتي ay ay tànkam lu dul ne yàlla dina ko laaj ñeenti mbir bokk na ci mbir yooyu mooy sa alal ji nga amoon ci àddina fan nga ko jëlee ak foo def kon moo tax bon doomu aadama bi rawatina jullit bi alal ji nga xam ne yaa ngay dajale war ngaa xam foo ko ndax yàlla subhanahu wa taala dina la ko laaj ak ba nga amee foo dugal léegi nag moom ci ni nga xam ne noonu la ñuy gisee suñ système dëkk yi di ko doxee loolu taxaw seetlu bu ndaw am na ci dañuy jël xataa du seen alal sax waaye alal joo xam ne ñëpp a ko moom ñu dugal ko ci ay fo buñ jàpp ne yàlla du leen ko laaj yàlla dina xool kan moo responsabilité loolu mu laaj ko alal jooju noonu nga dugaloon foofu nga tax dugal ko fa ndax des fois nga ko. ñu ne jël nañ ay milliards dugal ko ci loo xam ne foo la mën naa am sax am na koo xam ne néew ko sénégalais loolu yàlla dina ko laaj ñooñu di ko def wala ñu ne diw am na ay nangam milliards mu ngi ko liggéey si ñetti weer wala juróomi weer ah loolu bi ko xoolee nekkul loo xam ne mën naa nekk alal jooju noonu milliards yooyu yàlla dina la ko laaj ëllëg yawmal qiyaama moo tax dañuy nettali ne saxaaba bu gën a sonn saxaaba yi. te loolu nettali la dañ ciy jàngee mooy Seydina Ousmane ibn Affan ndax dafa bëri woon alal lool waaye Seydina Ousmane alalam ji yëpp da def ci yoon yàlla kooku dinañ ko laaj alal jooju yëpp ah yow mi xam ne nag alal ji dañ kaa sàcc bu ñu waxee ñu ne déedéet loolu di ko tujjee sàcc ndax dañ koy xawma na système bu ñu waxee ne dañ koy defee waaye koo xam ne dafa sàcc loo xam ne tuuti la ñu ne mooy sàcc bi mën nañ ko see ne day sàcc alal joo xam ne réew maa moom kooku duñ ko tuddee alal euh, sàcc waaye xam ne neneen ñu koy tuddee ñun ñëpp yàlla na leen rek alal jooju moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy bàyyiloo xel ci ñuy wëttu alal alal ji ñu yàlla jox mooy lan ñu xam fan lañ koy jëlee ak fan lañ koy dugal loolu jullit bi bu ko xamee bàyyi ko xel xam ne bis boobu dina ñëw boobaa dina bàyyi xel nan lay fàggoo alalam ba nga xam ne fàggu bu muy def dina dagal fu mu koy dugal tamit dina dagal alquran dafay wax ne li leen yàlla jox na ngeen ci na ngeen ko jox maanaam loolu mooy lan mooy yàlla bu la joxee alal fexe cee joxe anam bu mu ciy joxe am na alal anam goo xam ne ci wàll àddina la mooy dëppoowul ci ku nekk noo gisee ne noonu nga war a financer sa alal ci wàll àddina def ko waaye na nekk loo xam ne lu dagal la loolu la ci borom xam-xam yi teg am na anam goo xam ne moom alaxira lay lay jëm te boobu moom moo ci ëpp solo ci jullit bi mu war a xam ndax am na benn waa joo xam ne nee na alal mooy na nga xam ne moom la ñuy fekk ëllëg yomal xiyaam waaye pas li nga xam ne moom la am ci àddina bi bokk na ci bunt yooyu mooy nga fexe ba financer sa ci sa bakkan ci jaamu yàlla maanaam yow nag yàlla jox na la alal nga def ko ci sa bopp waaye mu ngi gëm ci yenn jaamu yàlla yi wala ci jàmm yàlla yi nga xam ne attan ko comme weer yu ñu ne yàlla may na la alal nga dem aji ci màkka booba dañuy wax ne alal jooju baax na ndax defoo ko lu dul jàmm yàlla joo xam ne yàlla da kaa farataal ci yow mi ponk ci ponk islam bi ak yeneen mbir yoo xam ne ay jaamu yàlla la nga dugal ko ci wala ñu ne alal ji nga def ci loo xam ne daf lay dimbali ci jaamu yàlla te loolu neex naa xam loolu boo ko defee alal jooju noonu ëllëg du nekk gàcce ci yow ñaareel bi nga financé ko ci yoon yi nga xam ne dafa jëm ci yoon yu baax yi comme bokk ci tabax jumaa wala tabax école wala yi demee noonu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne bokk na ci li nga xam ne day continuer ci jaam bi bu faatoo mooy sarax soo xam ne day continuer sarax soo xam ne day continuer boo amul alal doo ko mën a def bu la yàlla defaree alal nag may la ko fexe kaa def ci loolu ndax ëllëg dina la jëriñ ak loo xam ne da ngay def ci nit ñi bi nga ko waxee mooy comme sarax soo xam ne da nga koy génnee wala loo xam ne da ngay def mu nekk lu baax maye am nga alal nga may ci ñi ngi ci war a may loolu tamit nekk na yoon woo xam ne gërëm nañ kon bu yàlla dimbalee ci alal nu koy wutee ba mu mën laa jëriñ ëllëg yomal xiyaama mooy yoon yi ñu tudd te mooy nga def ko ci jaamu yàlla wala lu lay dimbale ci jaamu yàlla wala nga def ko ci bërëb yi nga xam ne yiw am na ca dañ ci am yiw wala nga def ko ci nit ñi ba léegi tamit dañ ci am yiw mu nekk ay yoon yoo xam ne mën na laa yàqal alal jooju bokk na ci mooy alal nga def ko ci bàkkaar mbooleem xeeti bàkkaar yépp nga jël sa alal dugal ci ëllëg bàkkaar ba nam toll danga ci am ndax yow boobaa yaa ngay dimbale bàkkaar bu law wala bàkkaar bi des moo tax tey ah boo jëlee sa alal dugal ko ci place boo xam ne ëllëg ñu fay nekk dañ fay mooy yàlla mooy yàlla boobu dañ la ciy bindal amaa ah, danga ci danga ci am cër kon loolu noonu ci li yàq alal si la bokk bokk na ci ngay jël alal di ka yàq ci loo xam ne sax du dagan la comme masalan yàlla may na la xéewal nga nekk ci teraanga ëppal ci ba mu ëpp loolu noonu alal jooju nekkul loo xam ne da lay jëriñ waaye lu lay lu lay lu lay gaaraal la ëllëg yawmal qiyaama ndax tey masalan yàlla may na la xew jàmm nga jël ci def ci alal ju bëree bëri bëri bëri loolu ëllëg yawmal qiyaama yàlla dina ko dañoo dagal nag te loolu la ñu tuddee israaf ci sariya islamiya loolu dañ koy tere jullit fi wala nga ciy ëppalante ndax yàlla neen alhaakumu takaasuru ñi nga xam ne dañuy ëppalante ci wàllu alal te defuñ ko dara lu dul mbiram àddina ak seen bànneex bakkan ñooñu tamit alal loolu nekk loo xam ne dafay baax ci ñoom kon sariya islamiya tegal nañu yoon yi nga xam ne ci la ñuy sàmmee maqaasid sariya yooyu te mu bokk ci li nga xam ne mooy alal kon alal boo ko amee fexeel ëllëg mu jëriñ la yomal xiyaama te mooy nga jaar ci yoon yi nga xam ne indi nañ ko léegi te mooy lu ci ëpp solo mooy nga def ko ci loo xam ne yàlla gërëm na ko ëllëg nga mën cee am ay tiyaaba bu ko defee kon ñu xam ne kon sariya islamiya dafa ñëw pour li nga xam ne mooy bënal doomu aadama mooy doomu aadama bi dund ci texee bi àddina bi ëllëg yomal xiyaama bu dajee boromam am ngërmaaneem kon ñu déggee ko noonu duñ ci wax mu jub يخمن تي يالا لنتي دين يخمن تي ملا يالا جيغل نكو ما دالك الله العزيز والسلام عليكم ورحمة الله أبا الله أنا رسول إلى غير سيدنا